s'habiller chic classé glamour KERN vous ouvre ses portes waaw ubbil na leen ay buntam shop habillement accessoires Et marques italiennes boo duggee KERN DANAN ba Nous ñu xam ne dëgg différence mi sac bu classe sac de marque sac bu glamour yow mi nga xam nak ay robe ngay ensemble combinaison ay chaussures de marque façon Bolentibug. Fimoy ci bëgg fii mooy kër ndanan star rek la kon def ni Erika amul ben secret fudul keur ndanan ndaanaan fu mu fu la différence adresse bi Rufisque arrêt Sonadis derrière pharmacie Astel téléphone 33 836 54 23 wala 117 831 82 30 wala ngeen contacter ñu WhatsApp 0039 34 53 24 15 02 Damane. du bandi kër ndaanaan moo jox li nga bëgg dal leen ak jàmm waaye ci Tawfekh multimédia dama ne la seen boutique de référence lé agréé par Apple ngir seen réparation ak maintenance yëpp multimédia dana leen offrir nag ay service de qualité yu amul fenn benn technicien qualifié ci produit Apple yëpp nag laa la wax ordinateur téléphone dernière génération yëpp a ngi disponible yemu ca lu jëm nag ci seen wàllu meilleure protection seeni ordinateur ak portable ak seeni tablette waaw danañ leen jox ay machine de coupe yu amul fenn ngir aar seeni quartier téléphone balan 77 031 71 71 voilà 33 836 07 87 Taoufir multimédia votre boutique électronique de référence laa gëm ni yàlla jàmm bu mu bëgg a dimbali dalay dimbali ci gratuitement li nga tey bi ma génnee damay dox ba yàgg rek ma dajeeg sama benn xaritu yaay boo xam ni noo yàgg naa ba ma ko gëjee gis boobu li ma leex ni boobu sama yaay mi ngi dund yàgg naa ndeysaan ñu gisee waxtaan ba xamal ko ni am naa soxna mu kontaan rafetlu moom it daal di fay jooy xam nga parce que xam na mère bi ni mu meloon ci man xam nga ak moom ni mu meloon ak sama yaay vraiment mu touché ko trop ma nit ma waaye daal. Mm-hmm. mais après nag ñuy waxtaan man ma léegi fu ngeen dëkk ma expliqué ko suñu situation kër mu ni ma nag noonu jeex na tey damaa bëgg nga ñëw ma abal la kër goo xam ne. defuma fa dara te it kenn dëkku fa muy ren muy déwén yaa xam ñaata at nga fay def heure boo amee foo dëkk fekk situation yu changé boo la neexee boobaa nga bàyyi fa kër gi nga dem vraiment mu nekk loo xam ne aussi tey laa gëm ni liggéeyu ndey ndagati añu doom <laughs> waaye tey ji moom non añ bi ñëw na wax dëgg yàlla añ bi ñëw na di sama ya dan sonu ci man yeb tay la gëm ni coono ba tay walu na man wax dëgg yàlla vraiment legui nak lenn rek mo dess mo hmm. ñu jema xol le plus rapidement possible ñu fexé fexee nañu demee foofu Amadou li nga wax yépp dégg naa ko mais tamit Amadou nit jël këram noonu abal la ko gratuitement loolu de ku baax rek moo ko mun. non mère bi dafa baax wallahi dafa baax moo ko gisee tey dafa mel ni sama yaay laa jàkkaarloo. waaye nag Amadou borom kër gi tamit war nañ ko remercier delloo ko njukkal parce que budul dara tamit jàppale nañu de. oui wax dëgg yàlla wax na dëgg. léegi xanaa kay bu subaa su ñëwee wala ñu dem fa jéem waxtaan ak moom jaajëfal ko xamal ko ni tamit bu ñu sañoon eggale yéene moom waaye nag wax dëgg comme moom ci lay dundal njabootam te it lii rek la yaakaar ah am nañ fu ñu dem dañ ko def rek yàqu dara. baax na suba ak jàmm incha allah dina gën a baax bu soobee yàlla. yàlla baax trois jours a ngi nii aw ma ci yow waye du question dara dama bëgg rek juste nga wax ma sax lo xamne dina tegu sama loxo. sama borom kër ay 3 h du matin lay ñëw ak 2 h du matin té do ma né yow instant bobu yaa ngi nelaw dara sama loxo nak yow tamit Cheikh. Binus dama bëgg nga dara sa xel ci man gis nga 3 h du matin ak 2 h du matin yooyu ngay wax hmm. sa jëkkeur daf koy guddé lolu dëgg la mm-hmm. waaye nag. Euh, dalal la sa xel te xam ni trois heures du matin yooyu xoolal mayu ma ko virgule minute mayu ko. Ah si bul fàtte da ma jox liggéey mais euh, yàlla def na ni nag euh, trois heures du matin yeeg deux heures du matin wax noonu dafay fekk juste nag bureau lay nekk. bureau. man maa koy topp ba tëg ba tànk ak tànk. Cheikh trois heures du matin nga may wax ay waxi bureau. yow dafa mëna liggéey ba 3 h du matin hein wax ma leneen nak yow tamit yow ya ko topp ba gis ko muy génn bureau. Binus bi nga ma joxé liggéey ba légui taluma lek taluma nan ndax li li li li galu sama sama ndod li mhm. gëm gam ma wala gam loma mais bien sûr yow tamit. 3 h du matin 3 h du matin et quelques daf koy fekk bureau man maa koy topp diko top ba ni muy ci birom su waccaté buntu këram lay doon. bu faté né sama or yi ma jotoon de si yëpp ko mission bi amul lu ma jaralul parce que tamit li sama sey la au fait donc mo tax rek mala la si sonal ni dila soñu pour rek nga gën ci taxaw. <laughs> Euh, bu la jaralé ben jaral na ma fuk ndax dé nga ma. deug la dama bëgg ngay nelaw di lek ba suur di nan ba manti té xamni sa jëkër fépp fu mu dugg fu nek ci mhm. na la andi résultat yalla def na ni. semaine bi yëpp maa ngi koy topp. Hmm. maa ngi koy xaar weekend. weekend bi weekend bi waaw kay gis nga weekend bi nag weekend bi ci lay gën a sañse ci lay gën a mën a absenté weekend bi moom day xëy bu ma koy laaj fan la jëm sax daf may xaw a dóor Cheikh dimbali ma ci weekend bi nga xam fan lay dem parce que weekend bi sama wët la war a toog liggéeyul di. bul ma jiitu ci sama mbar ndax man maa ni gannaaw semaine bi rëcc na ma. Hmm. maa ngi koy kar ci weekend bi. dëgg la te li ma wóor ba woor mooy. Hmm. mboolem resto yoo xam ci réew mi.

man lenn rek moma neex ci yow meloo ni jigéenu Sénégal yi beuri bu nu umbe rek ko kenn du xam lu ñuy nuro waye du ngay ëmb di di gëna jongoma ma waye na ma la doon wax non loolu la insister pour waxat lako nga fogné jotul nga ut li ci ay ñaan bi yoon na xam naa ni damay weñ sa loxo rek yóbbu la nga uti ay ñaan. wax dëgg yàlla du ma la fendee man may bëgg sax làqatu di ko def mais sama jëkkër bëgg ko man aussi bëgguma ko ci ça le problème. xam nga lan la man xam naa ne sa jëkkër bëgg na la bëgg goo xam ne bés boo toogee moom waxtaan ak moom ne ko dangaa bëgg a uti ay ñaan du la ko tere yow essayel nga waxtaan ak moom.

tu yaa ngi nii di gént lenn da xamna ko bu desul dara lu dul ut ay ñaan rek bayiko sama lox mais essayel nga waxtaan ak sa jëkkeur parce que il est temps nga ut ay ñaan pour sa bop protéger sa bop je pense pas que dina ko bañ tamit lu jëm sama gu yaram mo tu as intérêt. waaw franchement lii moom métti na. man de maa ngi ñëw dem. d'accord. c'est grave, hein, vraiment. Waouh. Mais yo, <laughs> si ça te rappelle rien. <laughs> Ouais, école les une Récréation, on est là. Nous Dem on est là. de On a tellement de souvenirs, tu à fi ngi toog nii man ak yow suñu amour fii la démarré. mën ngay wax loolu tu sais que ni même bi may jóge Sénégal di dem mbëggeel boobu daf ma topp je pensais à sama xel bi anytime heure day ci yow la doon nekk. mais je te lan moo tax takkoo jabar kon. <laughs> mais man du ma trahir du ma woor. wax ne ko man damaa woor.

ndax man xam naa ne yow mën nga bëgg te man tamit yow laa bëgg man ak yow suñu amul du jeex wax naa la ko waxati la ko tôt tard xam naa ne lii dafay deñ damay génn ci sëy bi continuer ak yow ndax man yow yaa bëgg te yow yaa ma moom. amé dina nekk lu ma gën a trop vraiment parce que je t'aime énormément et amul dara lu ko mën a changer. xam naa loolu. mais mère Dege bi doon nekk fii. doon jaay ay dégg. xoolal da ngaa mën a juróom yi nga koy. xoolal da ngaa mën a fàttaliku lu yàgg ay dégg

mu dee dëgg rek la yàlla bëgg musuma ko yëg musuma ko tiim li nga ci am laa ci am li nga ci am noonu laa ci am comme nag li ñuy wax rek li olof di wax naan xale yi bi ñuy yëg kenn du ko yëg mais buñ daanoo ñëpp yëg ko mooy li ma dal sama diggante ak Bachir yàlla seede ne ni nga ko yëg rek laa ko yëgee. man daal Bachir. Ken xamul nan la mel mom lu ko neex rek lay def te du si taam ken, du ci waxtan ak ken kon Basir waxtaanu ci ak yow xolal li rek jabar ju bon mom boko amé ci si lay duggal ndax Basir ki mu takk nii séddoo mom ay bayam xamone ki jaruko man d'accord na sax bu doon jigen bu bax nga jël say xaaju alal kenn ko ne ngeen séddoo ko waaye kii baaxul te jaru ko jabar dafa mat tànn rawatina bu baax waaye lépp lépp lépp lépp Basir kese la ndax moom moo yor ñàkk faydaam ak ñàkk fulaam ba jabaram di a jiital nan day séddoo moom alalam. Oh, papa doguma la Basir dafa juum daa juum de te xam ne dafa juum. moom ci boppam xam ne dafa juum mais mbir nag léeg-léeg di nga ci dugg li ngay dugg doo ko xam da ngay dem ba ci biir doo ko xam li ngay def lan la loolu mooy li dal Bachir bu suñu réeree ci man ak moom dara lu muy dugg dinaa ko xam mais lii nii bi ci dugg yëguma tiinuma amaana bu ci waxtaanoon ak man ma xelal ko du ci dugg nii waaye def na ba pare li am am na léegi nag li am am na ba pare bay wéy na mbuus comme ni koy waxee olof nag nee bu ndox tuuroo ñu ne an bax mo fa dess mais bax du jëriñ dara li ñu def dañu roti wat bi lepp du lenn sa dom la ya ko jur sama xarit la sama doomu nday la sama genn wal la fu may wax ak yow ni desewut ak kenn ku dul nit ñi jabaram ji nekkon leppam mu wëru ci won leppam jàmm nako ko kon léegi ñu ni buñ ko jàmmoo dana gëna metti surtout yow nak sax lay wax yow mi nga xamne yaay suñu papu jurñu malay ñaan te yàlla tax nga delloo si waat sa xel te bañ a topp sa xol te xam ne ñun ñoo ko mën a dumbale ba génn ko situation yi rawatina yow mii di suñu pàpp nag nga ñaanal ko yàlla te mer gii nga ko mer dañ ci yow ñu fexe ba lépp dellu si waat ba ñu am bachir ba ñu amoon te mën naa nekk waaye nag ak condition mooy yow mi nga xam ne yaay suñu pàpp daal mooy delloo si waatal bachir baal ko te xamni da djum man lol la lay ñaan di nga basir sama xol da jeex ci mom lol waye ñi kenn waru leen soral sa bokk sa bop musa nday di sa bay sa mbokuy yu ak sa mbokuy jigen ku leen soral bokk ku ne torox nga ta olof day faral di wax ni ko amul way ku ne da nga yëmu bu basir na comme noonu la bëgg a dundee yàlla baax na nañ ko bàyyi di ko seetaan noonu rek. waaw mais jàpp ci rek incha allah man dinaa fa ñëw gën a waxtaan daal nga fexe daal ñu dellusiwaat ko. yàlla baax na nii ngay jaar. nii laa jaar yàlla baax na.

kan mo ko envoyé li borom mo ko envoyé. li man may borom. yaa ma ko envoyé nak yaa ma ko envoyé xoolaate sa envoi ba. e bi sax li lan ya mo ci nek i yow da nga dof lan yow ya lati li lan mo ci nek mais bul fàtte yow da ngay sey eh, da nga am et après. Eh, man je rêve quoi. gis nga lii maa ko fotow man la te maa tey gis nga man damaa sonn te su ma xamoon ni lii moo tax nga woo ma ma toog di la xaar di yàq sama temps duma ko def yow ak Bachir sa doomu nday yéen ñaar yéen a yam 6 et 9 boo ci jutal mu dem man aw ma temps bu may pet sooy génn nga tëjal ma bunt bi damay liggéey.

xale boobu def ni yuuxu yéen ñëpp ngeen profil ko man na jaawale numéro yi quand même te kooku dafa rataxle li ma leer ba dina ko wax Bachir. mais bien sûr xaritam la dina ko ko wax kay. ñu nga mën a genre erreur yoy non non mais avec ça tu me dis que t'es une lionne. eh man gaynde laa. yow gaynde dina jiw. putain merde. qu'est-ce qu'on va faire. calme-toi. nan la ñuy def damay top liko ko neex. Jibo ak mom def li mu bëgg boy yii yëpp après mu continuer waat sama histoire ak mom écoute Le lep, je m'en fous là. la t'as intérêt à régler ça. parce que xam nga ni ko wax sa écoute tu sais qu'est-ce qu'on va faire tu m'appelles plus parce que toi t'es une vraie conne. Quoi je te donne 15 jours plus même bu ma woowaati bu la nexé sax supprimer sama numéro ok. ba man ma jël décision woo parce que toi t'es une vraie conne tu peux pas comprendre comment nga tu oses de m'insulter hey, eh, Écoute, j'ai plus envie de te parler. Vas-y, pars, pas. Demande, demande, demande, demande, demande. Toi, avec ça, tu me dis que t'es une lionne, quoi, toi. Putain. amour. waaw bébé lan lire je t'ai employé indil naa la tuuti ndox comme ça ma wéttaliwaale là il est tellement concentré bébé B. Tu me manques. Hein? Je veux que tu me prends dans tes bras. Tu me fais un petit câlin, s'il te plaît. Hein? Dama la nam trop. Depuis quand tu m'as pas pris dans tes bras hein? Allez, viens. Viens. Alors, tu bien quand même. Tu as une cœur, non Mais fais qu'elle fait. J'ai juste envie que tu me prends dans tes bras. Mais t'as pas vu que tu manques hein? Je t'aime. Mais lan ngay lire nii dama bëgg ñu waxtaan doo teg livre bi un peu après dañuy waxtaan tout rek oui ma écoute-moi bien tu sais xaw ah, man bëgguma ñuy xuloo ma ak yow moo tax li xew sama digganteeg yow bee daf ma metti hmm? bee man am naa droit gis loo xam ne moom moo la neex ma def ko keroog nan laa lay mën a defalee soow mais indil la ko tu m'as dit du n'importe quoi li ma gën a metti aussi mooy comment t'as pu penser que man je suis capable de certaines choses entre toi et moi sama digganteeg yow ah xam nga ne man am na yoo xam ne dama ko def sama digganteeg yow bee. attends yow man xamal lu ma yéem naka nga def man ba xam samay bëgg-bëgg ak li may déranger ak yi may neex ak fi may coxataan yow noo def ba xam yoon loolu du dara dama ko tuwaaye sa jabar waaw ba xam fi mu mën ak fi mu mënewul xam yow tamit sa point faible ma exploité ko loolu la rek. sama mariage man ak yow depuis debut bi ba léegi jëndum conteneur la. baax rek wala bon c'est-à-dire laal sa dof-doflu bii man sama xol bi li ci nekk di jax-jax yi depuis début ba ba léegi yoo xam ne lan la

sac de marque sac bouglamour, glamour yow mi nga ensemble combinaison ay chaussures de marque façon bo len ci bëgg Fi moy kër ndanan, boutique ndanan yi star kon def ni mom, Erika amul ben secret fu dul kër ndaanaan fu la différence adresse bi Rufisque à Ressonadis, derrière pharmacie Astel téléphone 33 836 54 23 wala 77 831 82 30 wala ngeen contacter ñu WhatsApp 0039 34 53 24 15 02 Damane du bandi sañ dal leen ak jàmm waaye ci Tawfekh multimédia dama ne leen seen boutique de référence bi lé agréé par Apple ngir seen réparation ak maintenance yëpp Tawfekh multimédia dana leen offrir nag ay service de qualité yu amul fenn benn technicien qualifié ci produit Apple yëpp nag laa la wax ordinateur téléphone dernière génération yëpp a ngi disponible yemu ca lu jëm nag ci seen wàllu meilleure protection seen i ordinateur ak portable ak seen i tablette waaw danañ leen jox ay machine de coupe yu amul fenn ngir seen Tëngéej Rufisque gële quartier këri suuf téléphone ba lan la 77 031 71 71 wala 33 836 07 87 Tawfekh multimédia votre boutique électronique de